barkeb sëriñ saalixu bismillahi rahmaani rahiimi sëriñ bi noo ngi deeti ñaan faqir dafay nangoo dagaat nangul nu lépp lu nu la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi sëriñ bi noo ngi deeti ñaan faqir dafay nangoo dagaat nangul lépp lu nu ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ca Moustapha ma nekk marwat ak safa ak xaqi xamdil Moustapha mi yàlla jébbal xarnu bi ak xaqi mbooleem ay rakam ak xaqi seen baay ya ñu am ak xaqi seex yi bamba am ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem murit yëpp a ngi tuub tey rëccu bàkkaar yi nu juub ba lu nu bay bay du nu ngóob sëriñ bi geesul xarnu bi mbàkke da ngay boroom yi mbóot te njaboot tawat gi loot ñu dem maab antal pareet may làpputoo waa bi mbàkke da ngay boroom yi mbóot te sa njaboot tawat gi ñu dem ma ab antal pareet may làpputoo waa xarnu bi aw ma maqaamam di la woo waaye murit yi ñoo ma woo ne tawaltal te bu nu woo saw làmmeñee wow xarnu bi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 buural te boot nu nga la daam roggandi mboolem xarnu bi fabal sa doom yi yëpp boot ñoom it boot seenu njaboot ku munta boot nga jox ko mbóot ndax yàlla naatal xarnu bi te fa murid yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo tollu dolli seen xalaal ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla am dil Mustafa tabax jumaa yi Mustafa bam toll ni marwata safa ndax yàlla naatal xarnu bi mbooleem murit yépp a ngi jooy ngir lu ñu bay mu daal di gooy ba seeni haddi yaa ngi booy sarax nu naatal xarnu bi jamono jaa ngi xiif a xiif luñ togg bar gi ne ko fuuf Seex Bàmba neel gën ji mbindéef mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi geesul bi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 sa yërma neenu daa defal lu xel dajul daanu dëfal daanu tibbal daanu leel reggal nga mbooleem xarnu bi sa yërma neenu daa canal jigéen ña yaanu daa tey ñëpp a yem kenn sëriñ bi geesul xarnu bi ñu seeni sag saggiku naa ñu seeni gaay daggiku naa ñu seeni ngëm rikkiku naa ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moo ne ndax mooy tane daaw muy gën a far dellu gannaaw barab yu ayi sax dinaaw ey mbàkke geesul xarnu bi xat moo ne ndax mooy tane daaw muy gën a far dellu gannaaw barab yu ay yi sax dinaaw ey mbàkke geesul xarnu bi wuy nu ne wuy noo ko torox yalwaan am ku la sarax garab bu daanoo xob ya lax bàmbaay nda njaamal xarnu bi garab gu mag bu nee jirim garab yu ndaw ya dey jirim meññan ma say mbir ya xëlëm lii rekk a dal waa xarnu bi allahu akbaru zaman jamono moo mën a safaan xéewal yi daf daa walangaan ci ndabbi mbooleem xarnu bi li beeg si keeki saafaraal di woo muy walangaan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 daa bu tey ngay aña laax jaaxal na gaa yi xarnu bi léeg-léeg nga gis fi am murit muy taxawaalu ne marit wala mu xacc def tërit ndaw jomme gaa yi xarnu bi ana commerçant yi di jaay ñii di wajaa seeri baqaay te xam ne yaa doon seeni baay moo tee nga naatal xarnu bi ñëlee ngi xacc defi seef ñii defi dak ngir bañ a loof ñii daw ba raw ba nenu fiif moo tee nga naatal xarnu bi yow la nu yaakaar abada ngir yaanu tàggaleeg bi daa tum na nu mbooleem la nu daa bi yërëm nu tey yaru nanu dootu nu foo xammi nanu dootu nelaw yeewu nanu yërëm nu naatal xarnu bi soo nu joxoon lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yëgoone yaru nanu ku weddi laajal xarnu bi yërëm nu nan toroxlu nan jooy nanu ren saraxtu nan soppiku nan jébbulu nan sarax nu naatal xarnu bi nun tuxu nan sun këri baay gàddaay def la gën ji baay Tuubaa di kër Bamba di waay sëriñ bi geesul xarnu bi murid yi saalit nañu ren ngir xam ne yaa leen amee woon yaa leen joxoon lañu yoroon yóbbu nga mbooti xarnu bi tijaan yi réccu nañu tey xam nañ ne bay du sóoru boy yaa mën a may nit lu ko doy moo tee naatal xarnu bi tijaan yi réccu nañu tey xam nañ ne bay du sóoru boy yaa mën a may nit lu ko doy moo tee nga naatal xarnu bi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 te yor nga mbooti xaamidu man ngaa defar waa xarnu bi man ngaa defar bitee ki biir defar nga baa dolloo ki buur yaa dinni àllarba ak dibéer sàkk muriiti xarnu bi man sa kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw la wax fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi sa mbir ëppante nag dërëm ne xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokk ngëm nga may njariñ waa xarnu bi ma léebu gaa yi la xamul waaju xamul des koy xamal subhaana yaa kamat kuman yaa neexawan bi booleeg murid yuy daw di raam ak canta war waa xarnu bi bamba ma fu laa misaal yaay géej gi war waa Sénégal déefu la jàll genn gaal sëy du sa tooyal xarnu bi Seex Bamba yaa di maam mu laan ku soobu dootu ñaani naan ku man ni day dimbaale teen say kaasa màndal xarnu bi ku soobu génnaaley dërëm bekkoon bi dootu dem këram ku ne corom kaasum gërëm du mar di les ci xarnu bi ku soobu génnaaley dërëm bekkoon bi dootu dem këram ku ne corom kaasum gërëm du mar li des ci xarnu bi géeju xikam gëmu dëtam ba ne ko secc monsieur Fucca nannal ku xam toqen ga doy na xarnu bi lum loona foore ya wéyoon raam na kàngam ya fi woon daane na mbër ya ne woon amul nuroo ci xarnu bi si rub àndaari xam-xamam monsieur Fucca nattal wu jëm ayam ga suural naw ñoñam wu jëm amul ci xarnu bi fekkoon na ndab yi ne xareet mu soppi leen watay sareet duy leen gëneel bañ ne sareet wàccoo na moog waa xarnu bi taalif na moom lu feesi taax te xalimaam du juum du jaax te am xelam du gag naax du fàtte lëf ci xarnu bi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 yaa jant say gaaya di weer leer ya gënoo ci xarnu bi nun soobu nan la jàlle nu waay mbàkke bul dem bàyyi nu yowmal qiyaam yóbbaale nu te yóbbu mbooleem xarnu bi Seex Bamba yaay gën ci keno sa jën yi doy nañuy dono soo doon fetal di ak kenu say bala mokkal xarnu bi billaahi wéeru nan ci yow ngoy nan ci yaw lu mën a xew ngir urwatul wasqa du sew dee su ko dog ci xarnu bi Seex Bamba yaay gën ji wurus foo génn xàññar dal di rus gor la waaje dootu rus def nañ la ngay sunu takkaay di sun bitig nu di la jaay yaa gëni baay gën ne jaay yaa gën xariti xarnu bi Seex ma yaa dib li bi lamur de wuute naa ki coor sëriñ si soo bu ñu samboor ne kon ñu naatal xarnu bi Seex Bamba yaa nu mat boroom fekkoo ci àdduna moroom tooñoo borom tooñoo moroom ti nun nu tooñi xarnu bi pour yàlla jox na lay mi daay diwaan ña xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkeraan ab xarnu bi Seex Bamba yaa dib ku jëm ci yàlla na la ñaan soo doonu tur di alquran yaa boole mbooti xarnu bi def nan la géej bu dee fi yéeg te def la mbër mu dee fi déeg kelag mi wum nga bari jéeg si bul ci mboolem xarnu bi yàlla la jiital ca xadim tudde la ahmadul xadim jiitu na aadama ki doom jiitu na gaayi xarnu bi yow ma ajaaba bi balee yéefar yi ñoom wuyoo wala la bàmba not ñu naa alee notaale gaayi xarnu bi si rub da ba la ne naat ca doqi góor ña ñuy sanaat ñépp ne nu tàllal baat kenn yënguwul ca xarnu bi mu jàll toog ca gàngu naay buur yàlla ràngu koy médaille diwaan ba jox ko seeni gaay keroog la àtte xarnu bi billaahi bamba dim keleng moo jàpp seytaane welang ba tër ko renni fa gabong ñibbi si wax ko xarnu bi xaataltu fil bëri langeen kab kaba woo nat bul amin mahal amini wal amin moo ko waxoon waa xarnu bi yonneen ba ak ahlu badar ñoo dàq quartier ya ko wër seytaane nërmeelu di ser labbe ya daw ci xarnu bi gabong ña xam nañuy mbiram dalwaa ña xam nañuy mbiram lambar seere na mbiram seere sa wër na xarnu bi keroog la labbe yi na waaw marabu bi bu leen ci gaaw leeram gi sar na asamaaw sar na ci suuf si xarnu bi tubaab ya naa ko nan maroo soldaar sa naa ko bun meroo labbe ya naa ko bun waroo ñibbil yilif nga xarnu bi te gaale wuñ laa asamaaw bër yëpp booloo nañ na waaw gorang yi lañ nan sa gannaaw newum nga làmmi xarnu bi karaama yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraanga yaa nu ko defal yaa suturaal waa xarnu bi alla kër ak jaam ak goroog ceddoog sëriñ buur ak i dak mbokk ak i jaamur ñëpp a jag jaaraama daam ci xarnu bi luy nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askan yu du jeex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 waroon kurus ya daa aji ak gaa ya daa siyaare ji yaa tax ñu daa siyaare ji sëriñ sa woon ci xarnu bi wambat nga naar yekki wolof xalaat nga ngiram tasawuf sërif yi yaa teeñu suruf jàlle nga leen ci xarnu bi roy teefi xut bi ya nga woon kiimaani labdaali nga woon kiiraayi lawtaat yi nga woon ak nu jabaawi xarnu bi xut bi yow lañ daa fegoo nattu yëgoon ña daa tegoo las yaaxi yow lañ daa sagoo bay laaj hidaaya xarnu bi naar yaa ngi am hidaaya tey tiijaan di laaj hidaaya tey te mosu ñoo weesu bu réy yow la ñuy roy ci xarnu bi Seex Bamba yaa di am na wet sebbi nga tooyal gépp wet bay nga mu ñor ngóob nga fa fat man ngaa dundal waa xarnu bi Seex Bamba yaa di am na wet sebbi nga tooyal gépp wet bay nga mu ñor ngóob nga ba fat man ngaa dundal waa xarnu bi dundal na noo di sa njaboot waddu nu nenu wàq boot te suturaal nu may nu mboot nee leen amin yeen xarnu bi yaay fekk waaye njorondaay nga ful ko boole kooki gaay na doomi maam Zeyna bu njaay lamp woon ci xarnu bi yaay fekk waaye njorondaay nga ful ko boole kooki gaay na doomi maam Zeyna bu njaay làmp bi woon ci xarnu bi murid yi yaa yor seen ngërëm sëriñ si yaa yor seen xorom biñ la gisul ñi ngi ni xërëm fajal nu aajoy xarnu mi Seex Bàmba yaa di ak lu yor sëriñ si ñoo doon yow li biir waaju la nemm falu buur salem gi neex na xarnu bi wa saabiquuna saabiquun yàllaay buloon kun fa yëkkoon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 soo doon weer di weeru koor mbaa weeru gàmmu xarnu bi fadal nu ndaama yii di daan notal nu noon yii di nu daan jàggil nu mbër yi buñ nu daan te def nu mbër ci xarnu bi Cheikh Bamba yaa matub sëriñ yaa xóoti mbir te yaa xereñ waane wi yaaraw am marañ say gaal a bi soppinu ay wagoo ki gaal te yëf sa marchandise xaal te yóbbu yi Sénégal def nu machine ci xarnu bi Cheikh Bamba yaa matub sërif mbàkkeek musóobe dootu soof seen xol ya war na ne gërif maam jaara tiim na xarnu bi si gël nga waa mbàkke bawal mbàkke kajoor yaa leen bewal penku bawal yaa leen bi mbàkke xewar ak mbàkke baare kër sa saa ñànk bàmba leen defar ba ñuy defar waa xarnu bi askanu kër maham maharam yaa tax ba waa ju ñu gërëm mu ber këram ami dërëm daagu rusoo ci xarnu bi daaru salaam daarul minan daaru yi fii kulli zaman yaa leen joxoon la ñu yoroon ku weddi seetal xarnu bi yaa tax ñu dooni capital niroowu ñoo ki taal am nañu barke am alal ñoo gàddu mbooleem xarnu bi sa daaru yee di l'hôpital ku ràgg war na lay dagaan ku ñëw nga jox garab mu naan docteur bi yaa faj xarnu bi sa daaru yee di l'hôpital ku ràgg war na lay dagaan ku ñëw nga garab mu naan docteur bi yaa faj xarnu bi raggi xol ak raggi yaram yaa koy ragal joxi ngërëm jarak yi war nañ la gërëm ngir yaa wéral seen xarnu bi fekkoon nga réew mi defi ndool fekkoon nga ñëpp defi gool yaa tax ba ñuy nii mel ni bool yafal nga mbooleem xarnu bi fekkoon nga ñii defit la feñ ñii daanu par ba ne fëlëñ ñii ku ñu ñaan jabar mu bañ ñii mel ni man ci xarnu bi yaa dikk jag ña fi damoon jégganti mbir ya fi dëngoon yëkkati néeg yi suufe woon bañ mën a ànd xarnu bi amal nga gaa yi amuloon xamal nga gaa yi xamuloon feeñal nga mbir yi ndëbbu woon dekkal nga ruuyi xarnu bi sawaay du ñeewaayi keneen sawaay du xàcc jëm feneen deesu la xam di gëm keneen sa diina doy na xarnu bi taxoon nga ruuyi dajaloo te woo te woo te fetaloo te woo te woo ne kuy falu lislaam nga moomee xarnu bi xalloon nga ngir mi ba mu weex ku ca awoon mujj na seex te musulaa jàdd ka jeex ba yóbbu mboolem xarnu bi wa man nga ruuyi jox borom sàmmal nga cër yi seen borom seex bamba kenn sa morom yaa mën a jàllee xarnu bi dekkal nga julli te fetaloo ban ami góom yaa wane diinay xarnu bi aw nga siraatal mustaqim te boole woo wala ki doom ba àgg yàgg sa yëpp doom tey ñi ngi wammat xarnu bi sur na si yaa ko dekkalaat tarbiya yaa ko yeesalaat te alquran yaa ko fulaat yaa bind loo woon xarnu bi fekkoon nga ñuy wàññakatoor daa takki ndoom mooy takki coor yaa sampi daara fali buur tasaare daaray xarnu bi soppi jigéen ñi muslimaat ñuy dawi góor ne muxsinaat rikki takkaay yi seeni baat di muuru dëddu xarnu bi yaa tax nu daa sella li jëf yaa tax nu tekki nun wolof yaa tax ba nuy way di walif xamal nga gaa yi xarnu bi jirim yi yaa doon seeni baay baay yi yaa doon seeni yaay miskin yi yaa doon seen najaay yaay wéeruwaayu xarnu bi ku jooy fi yow nga noppiloo ku xiif fi yow nga reggloo ku mar fi yow nga mànniloo mànnal nga góoru xarnu nga doon noo seddu teggi cër bu doon wàccal ndamul laggul te teen ne wub nga làmmi xarnu bi mbooleem saxaabatul rasul ak mbër ya daa tagg rasul mel na ni bay nga seeni tool bayaale tooli xarnu bi kaab da daa tagg rasul bu seydi daa tagg rasul hasaanu daa tagg rasul sembal nga leen ci xarnu bi yaa raw ña daa janoog rasul ngir yàlla géey ba am usul ba def xalifatul rasul kawe nga mbooleem xarnu bi yoon wa mu aw baraw mi ba def danoy gën ji mi neef mu ne su koo xamal mi neef jomm na mbooleem xarnu bi diggante mul koog malakoot basar ca pee yi kenn mus la boole seeni móot bamba bàjjëb xarnu bi xaras la daa giseeg borom kursi yu lay xamee solom diwaan la daa falee morom di folli seefi xarnu bi moom la ñu may nuurul jalaal moom la ñu may nuurul jamaal mu boole kook sirul kamaal leeram ya dar na xarnu bi gaaleer ca lay jañee ci biir gaaleer ca lay ñoddee ngëneel kamaal ga lay falee méteel seexal na mbooleem xarnu bi yàlla la daa sukkandikoo yonen la daa jottalikoo jibril la daa dimbandikoo ba jot ci mbooti xarnu bi téere ya lay wettalikoo durus ga la daa jëfandikoo mafos la daa gàggantikoo xikam la daa suggalikoo moo naan na loon waa xarnu bi tawxid la daa xamal li jaam xikaaya lay xëyee subaam riwaaya lay gonte ni kaam du jëw du jànni xarnu bi fu mu toll day tagg rasul du war wa tey dammi rasul du wer sa bonkata rasul moo gën a wóor bi fu mu toll day tagg rasul war wa tey dammi rasul du wer sa bonkata rasul moo gën a wuute xarnu bi dem jàkka moo ko taxanu julli na fii ràkka ba géej aj màkka mas na ko ne géej fadilu aj na xarnu bi njool màkka daal lay sigaree soo ko déggee mu daal di ree giñ naa ne daawuñu soree jikkoom ya na xarnu bi fam na ca xayru lan bi yaa jikko yu raw yooyu law li yaa moo raw xiyaarul las fi yaa dennam amul ci xarnu bi dëddëm gu mag gamu jagoo ak am gu mat gamu jagoo ak muñ gu réy gamu sagoo mus la tawat ci xarnu bi na toom yu réy yam daa tegoo te teewu ko ànd ak sagoo te am na mbóot yi mu fegoo te du ko fekk ci xarnu bi duniyaa da koo wanoon gannaaw musu faale yamu laaw jubli ci yàlla ni bëggul galang bëggul médaille bëggul loo ab tubaab di jaay jaayante naag yàlla sa waay gañe na mbooleem xarnu bi bëggul fas ak nag ak gëléem bëggul bëy ak xar aki doom bëggul a am sàq njurum du jaay du jëndal xarnu bi bëggul a am junni yurong bëggul a dox di yori boŋ moo ma sa dox ba dem gaboŋ dellu si fii ci xarnu bi dërëm du yàq ab deram urus du tax mu ras bëtam nawul dërëm xeebul përëm moo gën a wuute xarnu bi dërëm xàmmeewu ko xandeer diinaar xàmmeewu ko ganaar kuy waaru bàmb doy na waar yàlla ba job xarnu bi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 gënul fi moom daqaar rusula yalwaanaka xaar ba yàlla jox ko xarnu bii màggat gënul fi moom si xaar nawit gënul fi moom kibaar njaccaar gënul gumba gu taar gu joxtu moom ba xarnu bii bambaay boroom kun fa yëkkoon moo doon ahmadul lamin moo tax amul xej ak iseen ma yërmaney waa xarnu bi baatin la daa fab dinu jóor du mere nit ba di ko dóor mboolem jigéenam ak góor defar na leen ci xarnu bii tarbiya lay yaree goneem tarqiyam ak ñawoon fa moom tasfiya mbër yu dee fi bañ mën a ànd xarnu bii diiraaya wilaaya lay defal borom cofeel gu am ci xarnu bi cofeel gi moo ma ko xamal xam-xam wi raw na sama xel leeram gi fees na sama xol baawaan ci gaa yi xarnu bi moo tax ba dootuma selaw cofeel gi tee na maa nelaw maa ngiy wëreelu ni ngelaw dootuma toog ci xarnu bi leeram gi daal may tex texaan saa xol di dem ba poroxaan may naan ba man nii coroxaan di buusu gaa yi xarnu bi leeram gi daal may tex texaan saa di dem ba poroxaan may naan ba man nii coroxaan di buusu gaa yi xarnu bi Seex Bamba yaa di sun imaam yow la nu teg fa sunu maam yow la nu doyloo ba fa saam xarnu noog waa xarnu bi sëriñ si woon dañoo texem ñuy yenn ñiy wex ba xeram Seex Bàmba moo safoon xorom safaale gaa yi xarnu bi ku leen fa boon teg ci balance jël Bàmba teg ca bee balance kon te mu wat seeni balance mbàkke du maasam xarnu bi xaw si mooy seen ilimaan moo sàmm wanteeg alxuraan hadis yenneen bara moo ko xamal waa xarnu bi moo am fasaatul lisaan laay moo xam seen cosaan moo xam li wàcc asamaan jëm ci suuf xarnu bi moo am maxaarijil xuróof mooy muhjisaati addinaan yi wàcce axiru zaman di rammu xeet bi jëm ji naan tubaali ahli xarnu bi tubaal ñaal na koy murit waylun ñaal na koy marit yàlla na nu bàmba def murit nee leen amin yéen xarnu bi jox naa ko faw sama xol saabum ngënee la may satal turum banaa ni sama xol fóotal nu gàkke xarnu bi bàmba da ngay may te nun nu def borom mooy moo tax nu sax di di la way ndaxte nga jéggal xarnu bi bàmba da ngay borom mi may te nun nu def borom mi mooy moo tax nu sax la way ndaxte nga dañuy sàkku ngërëm ca bis ba yàlla di yërëm xeet wi newoon ci xarnu bi yow mi liggéeyal sa borom ba am ngërëm xayrul xadim wàllin yow ci say ñuróom yow ma yaqoomu xarnu bi tabal ñu jannatu naxim te dëkk paak sa yëpp doom wunte yee yaayor seeni doom tijjil dugal waa xarnu bi ridwaanu tijjil na la nga wéy jox na la njënni yu la doy waaju la soob mu daal di wéy yaa ame caabi xarnu bi noppalu jil caxe la yéen yàlla gërëm na laak lamin yeneen gërëm na laak ñeneen ak ula faaw yi bi ak mursaliin ak lan bi yaa ak taabiin ak lawle yaa jinne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 dootunu tàppaatuy sayaan jaajëf defar nga xarnu bii jumaa ji yaa ko taxawal yaa tee mu naax saay niw yaral naa lam wa yàlla nanga ko matal amina war na xarnu bii yow la suleymaan xamaloon carrière ba dojee ca desoon jumaa ja bayti tabaxoon moom ngay defar waa xarnu bii daawuda bàmbalay misaal baytil muqaddasi la naal wuy ji boromam ba kamaal taaba defal ko xarnu bii nda may nga neel yowoon ca maam yësatu kokki ak ndaam nga boole ko nga neel li daam rangoo amoo ca xarnu bii murid sultaan nga boole koog wilaay yaa mën a tàggat xarnu bi yàlla na ngay muram murid te yàlla booy muram marid bi xaqi qaadirin murid ndax yàlla naatal xarnu bi allahu sul fadlil azim kum jox nga nee dee fi la yéem fadilu mooy fadlul xamim turam ñu doy na xarnu bi allahu sul fadlil azim kum jox nga neel dee fi la yéem fadilu mooy fadlul xamim turam ñu doy na xarnu bi mooy doomi samsun wa xamar mbàkke musóobe duñ ko jar moo namp yaari meeni ngor mooy bamba tey ci xarnu bi sa diiti baayam lay royaat leeru cosaan ga day royaat nday jaadi xayru mosinaat moo doon mbooti xarnu bi mooy noobulub lislaam fi nun mboolem sërif yi moo ci gën doonooy xuseynu wal xasan maay xaadamam ci xarnu bi ma wax la lëf ci ay jikkoom lewet woyof ànd ak sa goom niru na baay ba mat na doom ëmm na ker sa xarnu bi dem na ba màkkam jullikaay aj na siyaara gën ji baay te ënniwul alal di jaay nawlem amul ci xarnu bi taalifi baayam ay woyam moo doon duusi xam-xamam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 day fal di folli ci lu gaaw mat naa ragal ca xarnu bi day way te jàngu lool xaraf te man na xam du ca suruf moo man araab te man wolof jëmal na mboolem xarnu bi fab na ca baayam yéen bu diis te nuruwul boroomu tiis kuy rooti moo di dex gu fees moo mën a mànnal xarnu bi sañ-sañ ba lànne na ca moom jagle ga jiitu nag juddoom mbër mu ko sóoru daal di luum meram xajul ci xarnu bi rijaal ya xam nañ dara jaam bu nee jalal ñuy safi jaam nërëm nërëm di safi baam raamal ko war na xarnu bi yàlla nañ ko mayin wooti lamin fegal ko ay bépp noonu ku dégg ñaan na ne amin ndax yàlla naatal xarnu bi yàlla nañ ko may mooti lamin fegal ko ay bépp noonu ku dégg ñaan na ne amin ndax yàlla naatal xarnu bi léegi maa ngi teeru leen basiir donoy basiiran wa nasiir ku teeru naan lekk ba du ñàkk lëf ci xarnu bi moo am jalaal te am jamaal te xar kanam ba leer kamaal te bari xam-xam am xalaal buuri ko fii ka xarnu bi taar ba ca yusuf al karim ba buur ba fal ko def ko doom jigéen jafar tàggoog sagoom ma nga ak basiirum xarnu bi ci ak rawam la daal di raw foore ya daa a ka raw musul la jaar ci yëfi ndaw musul la faale xarnu bi soo bu na ngiram ta sowuf ku ko rawoon nee na la wif moo raw ña làqoon mooma lef sàkkaa ñi teewe xarnu bi ilmu diraaya la jagoo mbirum a la lëkkoo nooru la sagoo dennam amul ci xarnu bi durus yooyu la baaxoo te ku ñaan mu may la lëf ci xarnu bi yàlla na fi sax ba dégg maam ba toll ni maam ahmadu maam te doon na mbóot yewoon ca daam ndax yàlla naatal xarnu bi allahu moo di jenn waay moo jàpp doom def ko ni baay ñu bokk benn taxawaay ab doo di maamam xarnu bi boo ko gisee muy samandaay Seex Bamba ñoo niroo jotaay niroo yaram niroo sewaay niroo deret ci xarnu bi niroo doxin niroo waxin niroo jëm ak meloog defin buy ree nga waat ne du keneen bamba ñëwaat ci xarnu bi moo di wallax njaanu jinaan bu leen ko xool gëti kañaan kañaan du tee béjjën na daan bàyyama leeral xarnu bi moo doon tab ga woon ca moom moo doon njàmbaar ga ca moom seen bàyyee séddale jikkoom ko lii ci xarnu na saayiram day gaaw a mbiram mbir ma ca bàyyi may mbiram moo yor jëliili xarnu bi yàlla nañ ko dolli ay murit te yàlla na raw pexem marit te yàlla na mujj dib farit ba toll ni gaayi xarnu bi nan ñaanti yàlla mi samat mu may sëriñ abdou samat te may sëriñ abdul ahad lu doyo waa xarnu bi nan ñaanti yàlla mi samat mu may sëriñ abdou samat te may sëriñ abdul ahad lu doyo doy waa xarnu bi ci mooti xul wa fadliin sëriñ bu mag bi gën ci yéen yàlla bu seeni barke neen ndax yàlla naatal xarnu bi te yokk abdul qadiri fi batinin wa zahiri bi jaahi bàyyi tahiri bam toll ni jilim xarnu bi te yàlla na ibrahima moom defub xarit fa suñ borom ba jot ci mbooti turandoom ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem ñi dooni saalihin ci sowu jant mbaa feneen yàlla na saalihu di seen jant bu tiim waa xarnu bi mbooleem ñi dooni saalihin ci sowu jant mbaa feneen yàlla na saalihu di seen jant bu tiim waa xarnu bi du nu son ay bëgg ak alal ju bari jaag jam dara jàll yàlla na ko seex bam misaal ci suñ son ay buum xarnu bi te may nu barke ak rida te son ngërëm ci murtada ba ku ko soob mu def xadaa xaajaat yi ci xarnu bi te boole luy taaw ak caat góor a jigéen ci benn baat ndax yàlla sum xarnu bi naat amina war na xarnu bi mboolem lu seexu bamba am yàlla nañu gën te yokk ngëm kon leenu bokk am te am ngërëm ci xarnu bi Moussa Ka mi seen werokaan moo leen ni way di leen dagaan tey sant tey tagga kañaan ndax yàlla naatal xarnu bi waykat yi bu ñu yeboo ne xiim maa war di xaadimul xadim